soxna si ak borom këram. borom këram daal bàyyi na ko waaye nee naa boroom këram da koo yoreen xaalis bu baree baree baree baree baree. te doon dañ doon sëy ñoom ñaar. doon doon sëy. après ñu tàggoo. waaw ci waxi ndaw si. waaw ndaw si fi ñëw ci ay waxam. Mhm. waaw loolu wax nee na borom këram da ko doon àbb xaalis di ko àbb xaalis maanaam wax daal lu baree bari loo xam ne séq na ko. borom këram mën naa nekk de dafa am góor ñoo xam ne wéeroo leen neex. wéeru waaw waaye ba ñu wax comme nañ ko waxe woon rek. Mhm. nañ ñu waxe woon bañ waxeek moom ba pare mhm. ah bañ teg genn wàll gi borom këram fi yëglu na. Mm. ba wax na. Mm. ndaw si la ñuy teg après ñu teg borom këram. histoire bi équilibré waaw sénégalais yi jànge ci. jànge jox ñu dégg loolu nag mënuma ko wax suñu waa kër sëy la affaire bi di ma jaaxal ma dem feebar sama bëñ yi commencé di wadd médecin bi ne ma lii stress moo la def nii. ma toog beneen femme beneen femme ñëw benn mère ak benn paa di ko wër ne dafa jël si ñoom ay xar dafa jël si ñoom ay xar valeur un million xaw ma ñaata jabaru paa bi di xeex man foofu sama biir néeg xam nga ni sëñ bi lii neexul xeex man foofu sama biir néeg te moom yëpp yëg na ko problème yi yëpp yëg na ko ma toogaat beneen agence de voyage woo ma ne ma ne femme bi woo ma man fu ñu jëlee sama numéro jaaxal ma ma ne ko foo jëlee sama numéro mu ne dama laajte ba xaw ma kan moo ko moo ma jox mu ne ma kii jabaru surfo maa ne la dégg bi ma woowee téléphone mu ne ma sa jëkkër dafa am benn femme bu nekk bu nekk Italie bu la neexee sama waxtu lu ndaw si mu ne ma da koo jëndal billet ak ay doomam ñooñu war a ñëw vacances Sénégal te man boobu huissier mu may génne sama kër gi ma dëkk ma jaaxle. kan moo mayee seen sëy ana ay mbokkam. xam naa ay mbokkam bi biñ biñ ma mayee ba ñëw fii ñi demoon ñi nga xamante ne ñoom ñoo demoon ñaani xam naa leen ñu ngi dëkk usine ñaar tali gi ñoom ñoo demoon ñaani ñu mayee sëy bi mais sëy bi ba mu amee problème kër gu ma dëkk ñu génne ma damay génne bi damay ñëw ba tribunal ñu ne ma génne nañ la parce que fayu leen. ñu dem jëlaat benen appartement du fay kër gi mom wante da ngay dégg ne mu ngi mayé ci biti ci biti mayé ay billet avion ci biti joxe xaal ci biti té lu def ci biti damay tok rek ba nit ñëw ne ma ah sa jëkkër mo def li mo def li té mu ngi wara fay fayu man affaire bi jaaxal ma trop ma dëkke febar, dëkke febar ma tok yagul dara de mu woma mu jël supprimer ma ci whatsapp bi sama numéro yëpp mu supprimer ko ne bëgguma la dégg bëgguma la gis té jotéwuma ak mom dara de mu ne ma waa parce que dama takk jabar France man xam naa ne mënuma yor ñaari jabar léegi yow fase naa la ma ne ko nit ki balaa nga koy fase nga fay ko xaalisam yow mënoo tëdd ci sama xaalis ma yor samay facture nga jékki naan ma fase naa la. bu ma calculer 11 millions la mais 8 millions moo am facture. mais 8 millions yi nan mu jot ci. ñi ko ko doon jox ñëpp ku sa tur mu ngi ci facture bi mooy xale yi ma doon jaayal ñi ma doon jox sama xaalis sama frère bi ma doon dënk sama xaalis ñëpp ku ci ne ñoom ñoo doon dindi di ko jox. bu nee ne jox ma temps laa soxla ma woo ñooñu ne ko ne leen jox leen ko ñu jox ko. est ce amul amul fóot boo xam ne ci yéen la jigéen ñi. waaw peut être mën na nekk parce que bëgg sëy rek parce que jigéen toog noonu amoo jëkkër amoo dara arrangé wuñu sëy moo lay arrangé mais boo gisee góor gu ñëw ne moom dafa baax ah di wane yoo xamante ne te xam nga man lu ma gënoon poussé ci moom day jóg fajar lay jóg di jàpp di julli te man booy julli rek man loolu laay ñeewee nit ñeewuma doomu aadama am am wala da leneen lu may ñëwee doom aadama mooy ki nga xamante ne dafa fonk waxtu yu juróom fajar lay jóg di naafila di julli mais yi muy def nii man bu fekkoon ne defuma ko ma gis ko ni muy jullee ni muy jógee ak heure yi muy julli wallaay buñ ma ne kii day def lii dama naan du dëgg mënuma ko gëm mënuma ko gëm anamu ci loo koy dégg fan la féete man gisuma ko di man dafa déggoo lu ma la wax sippiir supprimer sama numéro yëpp mais am jox nañ ma numéro yoo xam ne boo ko ci woowee di nga ko jot mais man sama numéro yëpp da koo supprimer whatsapp bi yëpp da koo supprimer naan ma waaw bu ma soo su ma la woowee whatsapp ba su su ma waxee ak yow damay am ak sama jabar problème te bëggumaa am ak moom problème te gis nga li may wax ni yëpp coono bu ma daj fi yëpp dafa jëli yaayam Casamance indi ko mu indi yaayam indi rakkam bu jigéen xoola indi jabaru rakkam ak ak sëtam ñoom ñëpp mu indi leen te kër gi ñu jël ñaari néeg la ak saal bi mu leen indee damaa génne samay bagage yi ci salon bi teg yëpp ci biti li may wax yàlla rek laa koy seddeel teg yëpp ci biti dugal leen ñoom ci saal bi ñu nekk fa ak man rakkam bu jigéen nekk fa dëkke xuloo dëkke xeex jànq bu ma am rakkam xeex ak moom dem na ba man mi rakkam xeex na ak man. moom ñaata ngeen say. 9 9 ans. te amuñu doom rakkam dem na ba xeex ak man jànq bu ma fa teg rakk ji xeex man ñi doon ñëw vacances sama kër ku ñëw yaayam ne kii daf may déranger ma dàq leen ba ci kinne sama doomu cousin boo xam ne chaque année ci man la doon ñëw vacances yaayam naan kinne day téléphoné guddi day téléphoné guddi munuma def ak kinne ci la kinne gëj a ñëw vacances ci man ba léegi sama beneen rakk ñëw mu naan mu naan sama rakk boobu da koy ciipatu dégg nga sama jëkkër woo ma ne ma sama yaay nee na sa rakk bi da koy ciipatu te ciipatu saaga la ci ñun soose ma dàq ko dàq sama waa kër yëpp jigéen boo koy bàyyi balaa nga koy bàyyi jox delloo ko alalam parce que yoon loolu la wax ba pare yoon daf ne amoo droit nga takk jabar ba mu neex la nga jékki rek ne ko fase naa la noonu dem sa yoon fase naa la boo xam mel ni moom bi may ñaan ñaanuma woon ci ay ay doomu aadama mais li mu def nii moo du respect moo du respect man lu may ñaan ñu jàppale ma ma jot sama xaalis bu ma jotee sama xaalis dem liggéey waat dara jotu ma mun naa faju ba wér dem liggéey waat sama liggéey na ma jox sama xaalis rek man loolu la Ndiaye. ah ba legi dia li jeexagul de. Jeker ji na. ji na te nena ma. Hmm. ndaw si doon wax. Hmm. sama yaay nek handicapé. li Lilolo. Dur na yaayam ba yaayam damm ande handicapé jamono ji may ci waxi waa ji. non ndaw si moo dur yaayu Wow. ji. waaw ba yaay ji waa ji nekk andi handicapé. nee na da daan taxaw muy yaayam di saga papam et tout. li loolu. non ko kay mu gëna yomb. deglu waji rek. wax yépp amul fenn man am mom c'est vrai Maroc lañu xamanté Maroc la ko fekk bima ko fekk Maroc mo jëk Maroc dem ma dem Burkina Faso mu ne di ma wo ma ko man daal dama bëgg ñibbi Sénégal mais fu ton ni business ma ñëw fii docteur demee ñibbi Sénégal mu ne ma da ngay ñëw Maroc ma ne Maroc parce que amu bi c'est vrai mu ne bi pour ma ñu man ñëw Maroc amu fu ma nekk mu ne ma d'accord am benn problème ma ñëw Maroc nekkaa moom vingt et un jours xam moom dix neuf jours lañ def hôtel su fee ma fay moom wax ma ñëw Maroc bi ma jógee Maroc yoonu suuf laa jël ñëw Sénégal man yoonu suuf laa ñëw ñëw Sénégal ba ñëw see dem Malaysia ma dem voyage ma xaalis ma ñëw jënd sama kër jox euh, di yëg xaalis ko jox ñu toog jamono dem US affaire bi sama côté ñu toog benn jour mu ne ma ah am ngay bor pour fay euh, kër mais léegi am naa sam benn xaalis sam xaalis bu nekk foofu léegi su la neexee dinaa yemee su ma su ma jël jox la dinaa jël foofu deux cent mille ma ne ko d'accord ok ñu dem mën a amuñu ànd ci eh, eh, ci banque mi jël cinq cent ñu jëlee cinq cent mu ñëw mu jël deux cent jël trois cent mille toogaata encore encore dem eh, mun na ma am naa set cent mille mais tout sama benn doom la nekk mun naa jëm jël ma ne ko ok mu ne ma su ma jël naa jël trois cent mille mu dem jël xaalis mu jëm jël trois semaines ma ji xaalis ma fay kër ma xaalis ma jël pour fay ma voyage bi ma voyagé nekk àll mu woo ma mu ne ma kër ga dafa am bor cinq mois ma kambo mu ne mu ne ma léegi am naa sama benn nijaay boo xam ne eh, wax naa mu ne mun nañu jox ko un million mais foog mu dégg sa baat man xaw ma ko yow dama dama wax ko rek comme sa nijaay dama wax mu ne ma non mais mu a suma nijaay nangu nangu na pour jox eh, mais su ma joxee il faut nga jox ma quatre cent mille naa jël quatre cent mille foofu ma ko ci am pour ma lii laa am sama lii ndax moom xaalis bu xamee jël naa te xaalis bi yéeg naa deux millions dem jox ko signé na papier si papier maa ngi ci man lii lan lii moo nekk si li ci ta lii ndax moom. musu yëkkati un million di ma teg sama loxo musu yee deux mille fu amee un million sax fu mu liggéey ban liggéey dafa moo am un million ba trois million ba quatre million cinq million xamu amul bu ma xam sept million huit million day fen ma moom bor ma jël parce man Eh, moom dafa jël jël laal bi un million cinq cent te maa ko jox quatre cent mille maa ko jënd fiir mu bañ jëlee fiir mu dem jël laal bi bi mu eh, eh, ci fande an ndaw si est-ce que maa ngi foofu bi mu signé daa ndaw si kon maa ngi foofu loolu loolu lay dajale loolu lay dajale moom moom looy wax waaw dafa jaay or de fen bari jaay or la fa ay or bi mu jaay séedé ñoom foofu man fay naa xaalis boobu fay fay naa ko jox naa ko xaalis ban or lay wax sama sama papa sàkk na ko sama yaay sàkk man sama papa kilifa la muy caas maa ngi nii Casamance nii actuellement maa mais de saaga sama papa day saaga sama yaay. dóor na sama yaay bi mu dam euh, nu mu tudd tàngam. waaw gis naa ay yeneen homme d'affaires ma rox mu yaakaar ma lu ma def eh, moom xamu ko lu ma def am sama xaalis moom xamu ko. su bëggee ñu bindoo ko ko nee ko fu mu bind kayit mu ma sama garanti dem mu bind fu ma xam ma mu jox ma sax ban condition ban ci am eh, eh, lu muy lekk sax sax pour fay kër sax problème maro kon fasi ako ko wàcc naa ko xam lu muy def nee na dee sama def loolu kese la day jëli paaga guddi ne dafa ma rey day rey boppam wax naa sama xarit loo tam ma bakku lu yëpp saag na di saagal muy saag sama yaay sama ndey di ko saagee di nga dégg sëy kon dama ko fase parce que dafa dur sama yaay eh, dam tàngam sama yaay mu ngi handicapé la à cause bugu sama yaay ku bugu sa yaay est-ce di nga bug ba njigéen mooma jar sama yaay sama yaay toog na dix ans mi ma utu amuma kon jaruma loo tax mu woo la alhamdulilah la man takk naa jabar ku ma respecté la ku ma fonk la lu ma wax la dina dégg su ma waxee dina bàyyi kon moom nee ko mu bàyyi ma ngir yàlla ay yonent bi. sa ci nu mu tudd lu tax mu mer xam nga lu tax cent cent cent cent bi après eh, eh, dafa muy ay fulóor ko lu tax mu nga mu loolu se eh, nu sekk mu amul yow ma yónni fulóor amour bul dara mu mer mun ma doo ok mu mu jël benn numéro mu envoyé message mu bloqué ko encore ci euh, euh, euh, nutu WhatsApp mu mel Fatou amee ma ko un centime day fen mosuma jox un million sax ju ma cinq sax di ma jox amul te fa xaalis fay naa ko jox naa ko tout cas c'est neuf ans mu mujj fi moom c'est c'est. doy na waar de. Ndiaye triste na quoi. waa xam nga ñun moom. ëpp ñu sénégalais yi xel mhm. euh, femme bi wax na waa ji wax na mhm. Mhm. nañ leen bàyyi ñoom seen xalaat ah. bu fekkonte ne benn parti la sax nga mën a joxe sa xalaat jëm ay supposition wala yaakaar mais comme ñaan ñëpp wax nañu nañu leen bàyyi sénégalais yi jugé gis nga njaay waaw xam nga ñaari parti dégg ngeen ko mais man xam nga déglu naa ci yeneen i audio yu bare bare femme bi di wax waa di wax ñoom seen dialogue am na dialogue yoo xam ne xajul fii mais man li ma gis muy waaj ndaw waa ndaw si ci boppam. Mhm. waaj daa takk beneen jabar. su waaj yi bàyyi takkul woon beneen jabar. Mhm. yam ci moom rek. Mhm. lii du feeñ. sa àtte la loolu. waaw ci sama gis-gis. ci li ma li ma jàngat ci audio yi ma jot ci indiwu ci auditeurs yi dégguñu ko. parce que da dégg léeg-léeg ndaw si di ko jéggulu xam nga yow laa bëgg waruma jindéeg beneen jigéen patiti patata yooyu waaw yooyu am na da nga koy dégg ndaw si di ko wax mhm. waa ji tamit di di di wax waa ji fi mu ne am na beneen jabaram bu nekk France mi ngi amatul benn problème encore xaalis bi nga xam ne moom lay waaj ndaw si di wax ndaw si bi mu ñëwee fii indi ko xaalis bi ci ay këyit ci ay këyit lañ ko bind noonu rek amul desaan waaw waaw ndaw si waa ji nee na li mu ko ameel fay na ko ko ci waxi waa ji mhm. ndaw si nee na amee fay fayu ko mais ci lima gis dal su ko waji dakaton problème bi dina arranger problème bi dina arranger mais ndaw bugutuko ndaw si neena waji neena ji nee na ko waa ji ni moom waaw te gis nga nak la ko fi gis nga ñaar ñi mëno leena conseiller lu nenn lu normal bu alal dab ak jigen gu bëgg jigen mum su bëgge day gumba taxlu su mbeke mir bi nak lay doga yew en du jigéen rek nit sax na doomu aadama. waaw doomu aadama ci boppam. bu bëggee moom euh, léeg-léeg mu def yoo xam ne après bu ca génnee danaan man lii yu ma ci lu ma ci dugaloon. Hmm. waaw bari na ñu ñuy nax jamono ji dañ leen topp ci li ñu bëgg. ah en tout cas. mais xëy na peut-être benn affaire rek. waaw mooy alal jarul yenn yi. Hmm. Hmm. femme bi bu fekkee waa ji da ko da ko da ko da koo yoreel. te waa ji nee na bëggatul femme bi. li ma la waxoon rek le président t'oublie oublie le président. waaw ku la bëggul bu ko bëgg. na ko bàyyi. muñ waaw bu fekkee da ko ameel xaalis mu ba ko ki yàlla te ku ci la te même bu ñu amul ak njaboot parce que point boobu sax ñoom waxuñu ci xamuñ ndax am nañuy doomam déet mais même bu fekkee amuñu ko mhm. sëy nañ juróom-ñeenti at mhm. nañu jël la neexoon foofa mhm. remplacé ko li naqari wallaay bëgg naa lu rafet kenn bañ leen a xamal gis nga àdduna gis nga euh, baan hmm. ak dund bu ci bu ci sutura jugee. Mm. barke Serigne Saliou dara desatu ci. ah doy na waar de. gis nga nit a ngi def loo xamante ne jii dañu koy mbamb guddeeg bëccëg ci rajo yi journaux yu télé yi amee ko li mu def li mu def. Mm-hmm. nit a ngi def lu ko gën a yées. Mm-hmm. waaye sutura yàllaa tax. Mm-hmm. yàlla nag bala mu lay sàng sutura day fekk yow sa jëmi bopp nga bëgg sutura. nga sàng ko sa xam nga Ndiaye. waxumoon waruñu waruñoo ñëw ci rajo ndax kenn ku nekk booy wote wallu fa nga ko yaakaar fa ngay jëmale sa gémmiñ. Mm. en tant que sénégalais. très bien waa ji nee yaayam ku ko fitnaal wala ku ko joxul cër du ànd ak yow. Mm-hmm. d'accord naa ceeg moom. Mm-hmm. dem na seeti ki ko doy mu ànd ak moom. Mm-hmm. femme bit na considère ne fii la yëf yi waroon a yem na ko fa yemale. xaalis boobu mu bàyyi noonu. très bien xam nga ñàkk ñàkk ñàkk wóolu yàlla mi ngi tàmbale ci topp ku la toppul. ak lum ko mën di yoreel pare na ci moom femme bi na am mat gu toll ne. mettre une croix sur le euh, euh, ci waa ji xam nga man daal loolu laa xam nga man fan la fan la sama philosophie egg man. Mm. Mm. mooy li tax bëgguma wax lu ñaaw bëgguma ko def. Mm-hmm. Euh, da ngay gis heure boo xëy di gis ay exemple mm-hmm. am na suñu collègue boo xam ni mu ngi doon liggéey foofu ca biir TFM. Mhm. feebaru dara jotu ko. Mhm. mu yeew rek dee. Mhm. te koo fi lu ñaaw baa nga def ko fi yeewu fekk mu gaañu da ngay réccu. yenn saa yi nit nga dégg ci moom lenn mu feebar wala mu faatu nga ruus faa dem seeti ko wala dara ci fekk na lu ñaaw. Mm, la ngeen seqoon wala yooyu. doonu loolu tax rek nañuy xool rek muy rafet ñuy xool nu muy gën a naayisee rek ñu koy doxalee noonu daal àdduna amul benn solo ba pare lu fi dul jeex amul. mais may conseiller jigéen ñi. jigéen ñiy liggéey te yor seen weccet suñuy lebal seen jëkkër yi nañ xool li leen di lebal gars yi ci bari dañ leen di nax. mais loolu sax dama koo contre. dañ lekk seen xaalis am na diggante foo xam ne bor xaju fa. wax bor xaju fa mais. c'est-à-dire xëy na dañ koy tuddee noonu mais bor xaju fa. bor xaju fa. buy neex moom amul bor moom waaye bu naqaree. raison de plus léegi nag su Ablaye Diop mission la ñuy am. ñëw rek pour lekk xaalisu ndaw si. nga bañ ko nga bañ ko. non xam nga su ma nekkee jigéen dem ba lay jox suma xaalis day fekk ma mën ko. Mhm. beneen bi soob mooy du lu ma lay lebal. mais ba pare dama def parce que ne damaa lebal sama jëkkër mu tëdd ci boor bi dañ naan la amoo ngor. ay naxa saxanda lañ lay wax de. waaw léegi kay yow loo koy lebal na fekk nga doon loo ko bari na góor ñu yoreel seen jabar bor de. loolu moom amul sama dem te ñëw. waaw bari na góor ñoo xamante ne jii tey li ñu àbb seen jabar àll ma lii damay dugg fii ak damay bu ñu leen ko fayoon tey jii ñoo ñu nekk ay ay ay millionnaire. bu doon classe la boo defee euh, yow yow sa appel bi nga def ni hmm. man président lay wax jaay maa ngi nii femme yi duñ lebal am yambar de <laughs> seen jëkkër su fekkee am yambar la duñ ko lebal dara ñi li ma wax daal mooy xalaas gi moom mun leen ko xalaas ba mu ah, jeex tey xam ndax li ngeen def xalaas la wala na ngeen ko tuddee eh. ah mais xalaas dama yaakaar fait divers yi moom ngeen xalaas li ah, du ah mais am na beneen fait divers boo xam ne war ngeen ko xalaas Real Madrid toog na <laughs> waa quart de finale loolu du fait divers waa <laughs> doxal euh, doxal non non déggal gars yi ci ci whatsapp bi ñu ni waaw Barça dafa dem xaw dëkk ba toj ko. Hmm. demaat fa toj ko demaat fa toj ko rajax. <laughs> ma tegale ci leneen. waa Real nañu woo Sonko mu sensé système ba. Eh, eh, kon Arsenal woo Sonko mu sensé système ba jàll bopp ñu ngi lay nuyoo bopp. <laughs> yaa gën a na xam naa xool ba jeex na. <laughs> waaye bopp su bopp su mbalee Real toog na bopp su. Njaay bien dàq.